الذين وجب حمد ربي العظيم على دماء المصطفى الكريم وجب حمد ربي العظيم على دماء المصطفى الكريم الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ñu يكتئ كادو دين دوكيل ndokkeel ñi ñew nañ ci bërepp bi nga xam ne bu yàlla la te kenn ci julliti yàlla yi tabax ko ñuy wax ne borom xam-xam dañuy wax ne asakay kër jàkka la jàkka fu koy def war a doon lu lew lu ñoŋ bañ dem ci mbedd rek wala fenn foo xam ne ngaa jàpp na rek nga def ko néeg bi nag kin ko defal néega ku rëy la sëñ fàllu daana wax ne kenn la ñuy topp buñ ko waxee nee na dina rëy waaye ki ñuy topp moo suñ borom moo rëy eh, kon ñu ngi ñaan suñu borom lépp luñ fi jaamu yàlla suñu borom nangu ko te dencal na ko suñu téeree jëf balaa sunu kàddoo jóg nag ñu yalwaan mbokk yëpp ci kilifteefu sëriñ Fàllu mi eh, ñu ñaanal sëriñ Maam Moor moom Seex Mamadu Faadal sëñ Maam Moor moom dañu wax ne jàkka ju amoon ab soror la soror bi moo daanu soror boobu moo daanu Soror la won bo xam tamit da daan nital ñu bari julit yek ñu dut julit Omar ibnu Abdosi bi mu nelawé am ay chrétien yu ñew di ko ñu ne len yeen bokku len diine lu ngeen di ñew ñu ne ko dafa doonoon ab soror bu amoon lumière lumière nak daf daan agsi ci ñun di ñu nital lolo tax ñu ñew waye señ mam Mor non la meloon kon yal nako ko jéggel jéggal ko tabal ko àjjanay firdausi waaw mom ko na ken du ci mëna wax ndax ku won waaw nee na nee na ñu jàng faatiha ak fukki laxlaas ak benn ñu yéene ko yool wi waaye man ci ba si bayitu xasida mu jéggal moo tax daanaka mënta jóg di fa bàyyi mu yabal kenn koo xam ne ku mu doy loola muy sëriñ fallu mi di doomi sëriñ basiiru moom sëñ fallu xam naa foofu jarut taxaw waaye sëñ basiiru moom bokk na ci ñi ñuy bégg ci dëkk bi ay doomam ñëpp la yar ñëpp a jàng jigéen ak góor ñëpp a jàng loolu doy na sëkk ci njukkal sëñ tubaa delloo sëñ tubaa doy na sëkk ci loolu ay doomam ñëpp a jàng ñëpp a yaru loolu doy na ci firnde rek kenoon jiite ci masaalikul jinaan doomam la te rakk ñii la kon nag yal na ko yàlla moom it guddal aw fanam sëriñ Seex Mbàkke moom sëriñ euh, Modou Faty Khary mi ngi nii toog moom koñ bii la dëkk moom it mi ngi nii toog sëriñ du Dieng mii doomi sëñ Malick Dieng la euh, ci guddi euh, man billaahi walla ak waxtu yàlla bu ma bu ma ko fekkee ci guddi 3 heures du matin lay ñaanal sëñ malik ndax sama xel dem ci alquran ma sama di ko ñaan séerelu ma wallahi la asim 3 heures du matin waaw borom doomi alquran la ko xamanteni ku am way ci dekk bi la am ki bayam da daan def kamil bu mu bind rek ñu indil seigne blad seigne blad tegon ko mak te juróom fukki at ak la dun seigne sammi mi doomi sëñ aafe tamit bokk ci njabot gi dara ak seigne modou mamoud ak ñi fi nek ñep amna ñep du jar lim Baye mbay sara nga nele ñi tamit ay dëkkandoo lan sëñ fallu mi ak sëñ birem job mi ak ñep dal ñep nga fi wax deug yalla ah wa khalifa sëñ mo fallo mom sëñ mo Absalo momi di ci magi mi kon ni ni def kaddu yi rek bala ndax jotaay yi dafa xat bari ki Aliou Ndiaye me mom imam la li ni def bala no wax ci mom benn baat ñaan suñu borom fiqal ko aw fanam te guddal ko ku jubla ku ku ku am jariñ ci dekk bi la ko xamanteni ñi ngi koy tuba di tawassul mu bayel nako fi ndax limi liggey liggéey gone gu nangoo ci ak yeer téré yi di ko janggale, di ko besar. te te yego ci sa udara, dara lolu ciat la lo xamanteni kon ñi ngi koy ñaanal baax di ñaan xalim yi nga xam ne wax na ma léegi ne mom la sëriñ bi jox jàkka bima ko fi gisee dama ne ko yaakaaroon naa ne dinaa la fekk rek ndax amut jakk juma julle julleewut ci koñ bi ndax kër gi nekkon naa ci waaye fu ma dem moom fi moom dama ko fay fekk kon moo tax daanaka te boo ko gisee nii ku ku ku baax la koo xam ne jàkka mooy bérébam li yonante bi waxoon ne fi may xamee nit ñi mooy nit ñu baax ñi maa ngi leen di xamee seen i béréb mooy bérébu yàlla bérébu yàlla nag mooy jàkka yàlla na ko yàlla tawal xanaa benn kàddu rek jox sëñ alluwe mu sànni ci kàddu soññ nit ñi ñu bañ koo def jàkk yi nga xam ne ñoo am ci dëkk bi rek boo noddee fajar rek teg sa alxuraan loolu kenn du ne baaxul waaye loraange ngi ci de xam naa ku ko xam ku xam dëgg-dëgg fiq xam li yi am ci kii dinga nga moytu yu mel noonu xam ne ja béréb bi du béréb bu indi portable du béréb bu waxtaan béréb bu jaamu yàlla kon ñu jox sëñ bi bu noppee soog a jox sëñ bas mi sëñ sëñ Aliou bisimilah. rahmaani rahim alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala ashrafil anbiyaai wal mursalin نبينا محمد المكين وعلى آله وصحابته أجمعين الحمد لله رب العالمين وكي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نوغي سنت يالا منو ماي نيو فك خيول غوريغي تا موي اوبيتال جاكا دي نيغو سوني بروم سبحانه وتعالى ني نان يالا ني في تيو جيوي نيوغي اك ديمغي ييب سوني بروم ديفكو نجيغلوك بكار واي ديفكو فول مو فولول نيو اي تويابو يو ري ci barke Serigne Touba mi ngi ko tabax ci dëkkam di ñaan mbokk yi nga xam ne ñoo ci def seenu ñaq suñ borom fulal leen ko ni ko digee ci alquran wa ma anfaqtum min shay'in fa huwa yuxlifu wa huwa xayru képp koo xam ne dépassé nga sa al ci eh, turu suñ borom subhaanahu wa taala suñ borom dana la ko fulal ndax moom mooy ki nga xam ne mooy aji wërsëgale ji ñi ndokkeel mbooleem ñi nga xam ne nag ndeysaan taxawu nañ ci liggéey bi di jiital sunum nuyoo ci kilifa gi nga xam ne moo fi teew euh, jiite julli di sëriñ Fadilu moom sëriñ Bachiru moom Cheikh Mouhamadul di dollee ñaanal sunu jëwriñ ju baax jooju nga xam ne moo moo nu jiite woon muy sëriñ Mamor moo jiite woon alxuraan ji loola nag doy na sëkk doy na sëkk ndam mooy sëñ sëñ Muntaxa jiital ko foofu. di ndokkeel sëriñ Mouhamadou Sarr ak mbooleem ñi nga xam ne moom la àndal liggéey bu rëy bii néegub suñ boroom màggaay ak rëyaay gi moom daanaka ëmpul benn jullit daanaka mën nañ ne suñu borom subhaanahu wa taala lépp luñ koy idaafaal luñ koy sësale ci moom loola lu màgg la te moo wax ci téere bi ne jàkk man maa ko moom loolu néew na lu ko suñ borom di wax nangam maa moom waaye jàkk am na wàccuwaay bu toll noona ñaareel bet yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na képp ku tabaxal yàlla ab néeg donte dafa nuru lu doy di ci saahir ba mel ne tàggum piccim përëmtaan suñ borom dana ko tabaxal kër ci àjjana yool boobu mu ca déggee nag ñuy ñaan suñ boroom yàlla bu ñi taxawu jàkka ji ak ñi ko fekk ak ñi ci am yéene ji yàlla bu mu leen ump barke sëriñ Tuubaa Mbàkke te suñ borom ni mu tombeek njabootu sëriñ Fàllu teewe ko suñ borom jël tuyaaba jooju joxaalal na ko sëñ sëñ Maam moom yi nga xam ne moo dem ca uh, maamam yu baax yooyee ak baayam yu baax yooyee ci barke Sëriñ Tuubaa uh, xam naa nag <laughs> comme ñun waajuñu ko woon dëgg yàlla dañuy dogal ngant jàpp nañu kàddu yi sax moom ëpp nañu nag ñi fi nekk ci kilifa moom yaakaar naa ne daanaka ñoom ñoom lañu ñoo ñoo yooyo woon di fi wax daal yàlla suñ borom uh, dëkk bi Sëriñ Tuubaa ni mu ko ñaane ci la Matlabul Fawseyni leer na mooy dëkk bi yàlla nekk dëkk boo xam ne day am ay juma ñu fay jaamoo yàlla waccaxal bu yóoti kullaha masajida yaa naa fi an man laa yakunu saajida mboolem barab bu ñu may tuddoo rek na nga ko nekk mu nekk barab boo xam ne fu ñuy sujjootal yàlla la di fa jaamoo suñu borom ñu ngi dogal ngànt wasalaamaaleykum wa rahmatullah di yàlla dañ leen a xamoon ci yoonu maj sóob <laughs> boo dégloo bandi sëñ Seex Saare da nga naa kii moom ndax ci la bokk wala sóobuwu ci waaye daaya suñ tubaa da koo yar sëñ yar faaw nga jeexital jaamu yalla yi ak ki ci la yar njabotam yi te yakalu won pestefam bu ma sana dem keur seigne Abdou Khadir bu mënta dugg ci seng wi lay jël addiyaam adi ñibi wat kon nak ñu ngi la koy serer mom mi du baax waaw ñu noonu <laughs> tudde ko waaw kon ñu déglu sëriñ bi ci kàddu ñu déglu sëriñ salaamaaleykum wa rahmatulah sëriñ bi nee na asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. nee na mi ngi leen di nuyu kenn ku nekk ci turam ak santam. nee na di ci jiital kilifa yi nga xam ne moom lañ fekk yëpp. nee na kenn ku ci nekk tuddoon naa turam. nee na mi ngi leen di nuyu bu baax a baax. nee na di leen siyaare. nee na mi ngi leen di jottali nuyoob sëñ Ahmadou Rafahi Mbacke mu sëñ Fall. nee na moom mii sëñ Ahmadou Rafahi moo ko fi yabal. nee na ndigal da koo dabaat nee na moo tax suñu moo sëñ fàllu mi ñëw teewal ko fi nee na suñu rafaa mi nee na mi ngi nuy sant bu baax nee na mi ngi sant nee na jëf ju rafet jii nu jëf di jëfal lislaam waaw nee na daal ci gàttal yàlla nañ ci daje ngërëmal sëñ Tuubaa nee na ñu fexe ba waxtu wu nekk ñu feesal ko nee na waxtu yep rek julli jurom ku fi jage te dekk fi nee na wa wa waaw jakk yi mu set yu bari dañi tabax rek waye ñu bari duñ julli waye ji mom bokku ci mom am mi ngi koy na am ci yaakar am ci yàqin nee na yalla nañ ci yag julli nee na luñ ci julli rek yalla nangul nako wa lepp rek mu delo ko ci ngeureumal borom keur li ci téere yi nee na sëriñ Modou mi ngi leen di sant bu baax di leen gërëm di ñaan taxawaay bi nga taxaw na gën a yàgg lool ndax yàlla yàlla dolli sutura gi nee na def nu ay taalibe dëgg dëgg taalibe nee na te dara bañ koo yàq nee ci barkeb Seexul Xadim waaw nee lii sëñ jiili ñoom ak sëñ Aliou wax doy na sëkk nee na ngeen jëf

Seydou Xadim. Hmm? Hmm? Hmm?